السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yéen mbokk yi seetaan seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara fas yéene yëkkati ay kàddu muy ab yëgle boo xamante ni mbokk yoo am yéene ci jàppale chaîne bii di seenub chaîne di Xam Sam Réew TV doon nañu yëglu wax ne dañoo bëgg a wut kuréel goo xamante ni danañu jàppale chaîne bi ba mu am jumtuwaay te mooy matériel loole nag sunu benn kóllëre sunu xarit Alioune Badara Mbengue nekk ca Philadelphie ci Amérique def ci waxtaan ak man wax ma yéene ju mu ci am ma nongul ko ko numéro téléphone am moom ngeen gis nii numéro bi itam mooy whatsapp am ku bëgg a jokkoo ak moom adresse mail bi ngeen gis itam mooy adresse mail am ngir ku ko bëgg a envoyer mail yéeneem daal mooy moom ak ñi mel ni moom jàppale chaîne bi di Xam Sam Réew TV ba ñu mën a am jumtuwaay yu euh, méngoo ak jamono ba man leen a satisfaire xam-xam bi mu ngi fi waaye matériel bi moo manqué moom nag fas na yéene waxtaan ak ñi mel ni moom ngir taxawal ak kuréel goo xamante ni danañu jàppale Xam Sam Réew TV ma di leen xamal ni ku mu ci contacter rek na nga xamante na nga xam ni waxtaan na ci ak direction chaîne bi ba ñu nangul ko ko xamal ko ni ko loolu mën na ko wéyal kon Alioune Badara Mbengue nekk ca Philadelphie numéro téléphone am moom ngeen gis nii ci ecran bi ak adresse mail am jot na ndigal ci direction chaîne bi ngir contacter mbokk yi nga xamante ni bëgg nañoo jàppale seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV ba mu am matériel bu méngoo ak jamono ba ñuy mën a génn dem di leen indil barab yi nga xamante ni war ngeen koo xam ci Sénégal muy ay li tubaab bi wax ay site historique waaye mën a jóg itam di fekki boroomi xam-xam yooyu danañu leen invité ngir di waxtaan ak ñoom ci mboorum Sénégal lii daal mooy kàddu yi nga xamante ni moom laa doon yëkkati ngir képp koo xamante ni Alioune Badara Mbengue contacté na la rawatina ñi nekk aux États-Unis nga xamante ni jot na ndigal ci direction chaîne bi ngir jàpp ci liggéey bi mbokk yi nekk Europe itam ku ci bëgg bokk it moo xam dangay ngay jokkoo ak Alioune Badara walla fa nga nekk euh, da ngay seet noo ci jàppe ak bokk yi nekk Sénégal yépp itam kon noo ngi leen di tàllal loxo lii daal laa ni woon naa ko yëkkati ngir xamal leen ni Alioune Badara ñoo ko jox ndigal ngir mu wéyal liggéey boobu yéen jooju mu am ngir jàppale chaîne bi ñu ñaan ci dara darajey Serigne Touba yal na ngeen ci am ndam ci darajey ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba mu doonoon seen mbokkum taalibe liggéeyaa ko nu borom daarul muxti mbay géy sil ma di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf